cadre suñu programme social minier euh, réalisation yi nga xam ni def nañ ko ci deuxième trimestre deuxième semestre euh, deux mille seize ñu jox ko officiellement bi lay bénéficier muy population yi donc euh, comme ni nga ko waxee ni nga ko tënkee li ci fis rek mooy parce que ba nu ñooy taxaw ñaari ambulance moo taxaw mais effectivement ñaari ambulance benn pour Fass Boy bi la benn bi pour Taïba Ndiaye mais lu weesu loolu aussi am na ci yeneen loo yu bokk yoo xam ni joxe na ko pour les populations bokk ci Euh, ay mur de clôture yoo xam ni ñoo ngi ko def ci CEM bu Mewane ak CEM bu bu Ndomor boo ko xayma mi ngi toll ci fanweer million ak ñeent bu loolu wéyee ñu daal di aussi taxawal euh, lu ñu tuddee mutuelle de service communautaire maanaam xam nga jogo gi nekk dafa nekk euh, zone boo xam ni dafa bari maraîchage te fi ñuy liggéey aussi dañuy impacte maanaam ay maraîchers yu nekk foofu ñu ni nag pour wàññi impacte boobu. pour bañ a yàq seen liggéey nanu fexe nu leen organiser ci benn genre mutuel boo xam ne dañ ciy dugal xaalis xaalis bi toll ci première phase bi ci vingt cinq millions pour que ñoom ñu mën a def seen biir micro crédit loolu ñu joxe nag ci dans le cadre ci ci cadre mutuel boobu amul intérêt ñoom ñoo koy gérer population nun ko bëggee déjà monté nañ mutuel bi euh, tijji na leen compte bancaire tey ji jox nañ leen le bon de notification et virement bi moo ci war a topp bu ko defee ñoom janvier 2017 ñu mën a commencé seen activité ma yaakaar dina leen war a yombal ci lu bari ci wàllu mbay mi ci wàllu jënd intrant maanaam yi nga xam mooy dem ci mbay mi euh, fertilisant semence de qualité yooyu yëpp boole ceeg aussi ay formation de ay renforcement de capacité parce que dañ koy soxla ñoom euh, bu loolu wéyee aussi ñoo ngi taxawal benn ferme pilote maanaam benn genre tool la boo xam ni dañ fa bëgg a le solaire Euh, le solaire euh, ba noppi organiser population yi nga xam ñoo nekk ci wàllu euh, corridor bi ñuy tuddee corridor ferroviaire bi nekk diggante site bi ak jogo ak Ngaye village yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk nga xam ni ñoom jotuñu bénéficié wu lu bari ci projet bi ñu jëm leen ko jagleel bu ko defee ñoom ñu mun faa seeni seen activité loolu nag comme ni ko waxee phase pilote la maanaam bu fekkente ni dawal at wala ñaari at ñu xool ni njariñ li am na solo dañ koy démultiplier ci yeneen village yi ko wër ci le long du du du du corridor euh, euh, loolu mooy yi nga xam rek projet phare yi nga xam mën na ko wax mais bu loolu wéyee aussi actuellement au niveau de Mboro ñoo fay tabax benn marché communautaire comme ni ñu ko defoon Ngaye Mékhé euh, benn R plus 1 boo xam ni 18 cantines moo fa nekk te marché moderne lay nekk boo xam ni dina am lépp loo xam ni nit dina ko soxla pour jëm jëmtukaayam. au niveau de la de la commune de Mekhe aussi temps yi jox nañ leen benn enveloppe bu 27 millions boo xam ni ci seen ñoo ngi jëlee ci seen PIC maanaam seen plan d'investissement communal doon xool projet yi nga xam moom la population yi gën a soxla ñu génn ko ci ñett la yoo xam ni mooy projet phare yi benn bi mooy ay lampadaires solaires ci lim bu toll euh, ci 60 maanaam 60 juróom-benn fukk voilà juróom-benn fukk et puis. Euh, li ci neex ci projet ba mooy ñi koy defar ñoo ngi ñoo ngi woo Ngaye ñi koy installé aussi waa Ngaye la ñi koy def maintenance bi waa Ngaye la donc mu mel ni comme son dafay nekk un développement intégré euh, bu loolu wee aussi am na ay lu toll ci lim bu juróom fukk yoo xam ni ci bokk na ci ci ci enveloppe boobu également ak aménager ay espace vert pour que xale yi mën a bàyyi tali di fo ci tali dem di dajaloo ci espace vert yi mag ñi aussi man faa daje di noppalu wala di wax di waxtaan donc loolu bokk na ci nga xam ne ay projet phare la yoo xam ni bëggoon naa ko wax tey jii euh, di leen xamal ni nag am na yoo xam projet c'est en cours parce que dégagé na également benn enveloppe bu 30 millions pour la commune de Darou de de Darou Khoudoss pour euh, tabaxaat ay écoles réhabiliter écoles yoo xam ni dafa yàgg ba nekk ci état délabrement très avancé waaw def na loolu laa moom mën ci waaw collaboration ak collectivité locale lay njëkk a tontu parce que daf ñu ci fekkoon parce que comme li ma leen wax léegi projet yi ngeen gis yëpp ñu koy déroulé du projet yoo xam ñun ñoo ñëw tënk ko dem proposé ko collectivité locale yi bu ngeen demee ci collectivité locale bu ci nekk yi ñuy wër ni muy mbooroo Mboro euh, Ngaye Mekhe Darou mais wan fu nekk dañ fa installé li ñu tuddee un comité technique te comité technique boobu mooy organe bi ŋànk en fait programme social minier bi nga xam ni GCO mi ngi koy doxal ci biir gox yi donc euh, comité technique boobu moom mooy dem ànd ak GCO ñu identifier projet yi nga xam moom la population yi bëgg bu ñu ko identifier bu ñu ko indilee ñu xool lan ca mën a financer ñu jël projet yi ñoom da koy ranger par priorité bu ñu ko financer nag ci kaw biir financement boobu yëpp mise en œuvre bi sax ñoom comité technique moom moo ko yore donc ba keroog ñuy def réception bi mais duñ def réception rek bàyyi leen aussi parce que day parce que boo tabaxee jox leen rek amaana peut-être ils n'ont pas pour mën koo rendre euh, durable donc dañ leen di accompagner ba mu wóor ni ñi développement bi sax na ñu door leen a bàyyi ak seen bopp bon maintenant pour le code minier kooku peut-être euh, je suis le moins habilité à pour wax ci mais li wóor ba wóor mooy société minière lañu code minier moo ñu tënk donc buñ ci àggee ci loolu parce que ba léegi nag yëf yi dañuy wax mais àggaguñ ci application bi buñ ci àggee bu boobaa di ngeen gis ñun ni ñuy def ak population bi nga xam ne yaa ngi koy def bés euh, bu nekk sant bu baax euh, GCO euh, MTL directeur général monsieur Daniel Marini ak ki nga xam ne itam moom la ñu boolee di Daoud Dieng très disponible guddi ak bëccëg ñi ngi jokkoo ak moom vraiment moom it mu taxaw ci bu baax maa ngi fàttali ko bu ñu dajee ca Meewaan ñu laaj commune bu nekk na def ses priorités ses priorités ah société yi bëri nañu waaye ñu ko fa def bariwul tey incha allah muy xaar monsieur le préfet réunion boobu ñu defaat bu mel noonu def ko ak gestion mais ak toutes les entreprises yi nga xam ne ñu ngi ci arrondissement ndax kat bu yàlla defee nag euh, baaxee ñu société yu mag nekk suñu arrondissement ñii dañu war a séntu loo xam ne nii ñëpp dañu ñuy ñëwee te lu mel nii euh, commune bu ne bëgg na quoi parce que am ambulance médicalisée bu wees tax wax dëgg yàlla euh, lu am solo la pour dimbali de gestion comité de gestion a jàmbaar la ñu ngi def des nga ne gestion def na ko lii daal ci jàpp daañu fexe ba recruter chauffeur en attendant ñuy dox fexe ba entretien bi ñu assuré ko bu waree sax dotation carburant incha allah daañu ko prévoir te yaakaar naa ne commune euh, euh, commune bi conseil municipal bi dinañu autorisé pour que ñun tam ñu dugal ci loxo suñu loxo ne euh, liñ ñu jox mérito ko te itam. Euh, incha allah ñoo koy accompagner bu baax bi euh, ñu guddal la lu ko tax nañu ko tabarakallah te ni ñu ko doon waxee léegi rek bu ñu sañoon premier trimestre ñu defaat ndaje xool 2017 gestion MDL lu mu prévoir waaye yeneen société yi tam nañu def ñu moom ndax wax dëgg yàlla bu fekkente ni ñëpp dañu ni arrondissement de Méouane grande entreprise boobu la ñu nekk ah ñu ni war nañu am loo xam ni kenn amu ko loolu noo koy jàng ñaan sant bu baax autorités yi administration bi di santé bi pour que vraiment suñu arrondissement nekk arrondissement modèle te loolu tam jaadu na nag bu ñu yàlla baaxee ressources yi fii nekk du suñu jàmbaar loolu yàllaa ko def ak ñaanu mag ñu baax yi nga xam ne eh, ñoo fi jiitu suuf si barkeel eh, lu ne am am na fi kon nu guddal mais kontaan nañu baax sur le directeur général encore liggéey bi ñu def nii ba mu ñu indil ñu cérémonie de remise d'ambulance cérémonie de remise de ay ay jumtukaay yoo xam ne usine bi daf ko tabax ci ndigalu maire yi parce que dañoo laaj bu njëkk usines yi dañ doon jël rek seen xaatu bopp ne lii dañ koy defal askan bi mais léegi dañuy gis ne li gën a wóor mooy que ñu jaarale ko ci mairie yi jaarale ko ci maire maire bu réunir conseil municipal ba nee man bu ñu ma bëggee dimbali fii laa bëgg ñu def ko loolu usine bi comprendre ko nangul ñu ko ba moo tax ñu indi moo tax mu jur cérémonie bi mel nii. parce que bu ñu jaaree ci commune yi rek nañu mën a identifier ay projets yoo xam ne dina laal askan bi yëpp te askan bi dina ci mun a jot dina ci mën a jëriñoo di wax rek di ñaax ñi ngi xam ne ñoo ci jot. mooy comité santé Fass Boye mooy école yi ñu yi ñu tabaxal ay murs école yi ñu tabaxal ay classes. ak ambulance yu ñu jox comité santé yi ñu mun koo jëfandiku ba mu mun naka nekk ay jumtukaay yoo xam ne dina jëral dina jural lu baax askan bi te askan bi dañ ci mun a jëriñoo parce que ambulance dina soxla pour mun a évacuer ay malade mun a dem eh, ci village yi def ay ay stratégie de vaccination avancée donc ci ci ci ci kàddu yooyu laa bëggoon vraiment remercier GCO ñu continuer ci partenariat boobu un partenariat de proximité un partenariat inclusif boo xam ne ku ci nekk da ci dugal xalaatam pour que mu gën a dox donc maa ngi gërëm GCO vraiment ci enveloppe bi mu jaglee dans le cadre de la e pour que année bii di ñëw ñu mën a étendre aussi projet yi à d'autres secteur à d'autres localités pour que population askanu communes yi xam ne ñoo boot usine bi muy dara Khoudoss muy Mboro muy Taïba Ndiaye muy Mewane ñëpp mun cee jot donc loolu bu ñu ko defee rek jàmm dina am te partenariat bi dëkkandoo bi dina gën a ratax te loolu rek la ci njiitu réew mi jublu parce que dafa bëgg réew mi ku ci nekk jàpp ci usines yi jàpp ci commune jàpp ci état bi jàpp ci ak ses partenaires ñu mën a tabax un Sénégal émergent un Sénégal de développement un Sénégal de demain donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp te di di di ñaan ci gàmmu gi ñu jógee yàpp yàlla yàlla barkeel liggéey bi dooleel GCO ba bu ñu ko dee tënk ci wolof maanaam fii dox gox gi ñu nekk nii Fass booy jafe-jafe yi ñu amoon yi nga xam ne ñoo ci gën a fës mën nañu wax ni problème mu ambiance bokkoon na ci te tey saafarawu na beneen bi mën nañ wax problème mu ndox mi ndox mi moom dafa ragalu ndaxte melokaan bu mu am ne ndox mu laab warul am benn melokaan warul saf dara warul xeeñ dara ci ndox nag moom am na lu mu am melokaan boo xam ne dafa xonq jur te xaw naa raglu moo tax suñu wàllu ñun dañoo jëloon ay euh, ay siwo pour ñu koy filtrer ba pare ut ay comprimé aquatabs di ko def pour mu permettre nit ñi mun koy jëfandikoo loolu nag ñu ngi ko jëlee gannaaw bu ñu amee épidemie boo xam ne biir tañ yi dafa bari woon lool lool lool ci gox gi ñu waxtaan ci ak euh, suñu kilifa yi ñu nekk Tivaouane ñu jël ñëw fii def ci ay prélèvement bu ñu defee prélèvement ba pare ñu gis ñu déggal ñu que ni am na benn teen boo xam ne nañ ko sëkk wax nañ ci ñi nga fi nga xam ne wax ñu war a def yeneen yi ci des nag mooy ñu ngi xaar mooy wàllu. Euh, Mm, malnutrition maanaam yàmp bu xale yi xaw na fay fës lool parce que gox gi mënul nekk gox boo xam ne mooy jox li ci ëpp ci lujum ak i jën ci région de Thiès ba pare waa gox googu ñuy am feebar yooyu muy xiiban bu tar gi waaw weer bi ñu génne rek am na ci juróom benn xale yoo xam ne am nañ xiiban bu tara tara tar malgré que ñuy def ay jéego mais war nañ cee gën a mën a jàpp mu jàpp bu ñu jàpp rek mooy ñu yeewaat askan wi naka la ñuy jëfandikoo li nga xam ne meññeef moo fi am pour ñu xam ne xale yi mën a yàmp lu ko waral nag mooy seen activité bu ñuy def dana ñàkk ñoo xam dëkk boo xam ne dafa actif ñëpp ñu ngi ci géej gi ñu ngi ci tool gi képp koo xam ne rek moom sàng am ngay booy wërgu yaram rek boo xëyee rek am nga fi ngay jublu tout tànk yi nga xam ne nag moom kenn du leen toppatoo ñu xam ne dañ feral ba pare ñoom lañu gis ne leen bàyyi ak seen i maam te maam yi tamit ñoom amuñu jot boobu ak pour toppatoo xale yi ak kattan bi nga xam ne war nañu mun a jox xale yi lu ñu soxla loolu moo waral euh, feebar boobu xaw fee fës ci ci ci ci dëkk bi waaw. si waa PRN ñu fi fiy faral di mais nekk na loo xam ne euh, waa PRN mënuñoo yegg fépp pen parti rek la ñuy yem rek yeneen yi dañ koy jéem a lawal rek mais problème li ci problème face booy li ci ëpp ëpp mooy kenn amul jot. gone yi xaw a tuuti ñëpp ñu ngi dëkk ci géej gi ñeen boo gis pour nga mën a wax ak nit ki fekk nga dañ koy day teew bu teewee nga mën koo wax mu xam mais ñoom balaa ñooy wàcc balaa ñuy teew rek timis jot góor ak jigéen jafe-jafe yi amoon pour évacuer malade bokkoon na ci naan ambulance amuñu fi ambulance da ngay wootee oto mu jóge soit Daara Fall wala Jogo mu ñëw jël si malaat bi maintenant ak ambulance bi ñu am tey jafe-jafe boobu moom daanaka jàpp nañu mën nañ ko ginnaaw ndaxte ambulance bi dinañ permettre ñu teel a évacuer maa bi dañu jàpp ni Fass Boye bokk na ci gox goo ne moo gën a sori ci poste yi ci district bi mu ngi à 53 kilomètres du district ak ambulance yi moom vraiment ñu wàññil euh, problème yu bari. Euh, Saliou Youm